bu ñu la bu ñu la déggee nga koy wax ni sa pare ça paraît clair et je pense que y a des y a des personnes qui sont là y la ressource il est là pour développer ce genre d'affaires lan mooy le problème au Sénégal. pourquoi on n'arrive toujours pas à réaliser ce genre de projet problème mooy volonté politique. Mhm. amuñu volonté politique amuñu courage dugg ci yenn projet dans l'agrobusiness ñun on yaakaar ne que lépp c'est du service te service doxalul dëkk. Mhm. dëkk li koy doxal li koy doxal mooy agriculture mooy suuf. mooy suuf toit bi c'est pas pour rien ñuy wax ni que change que moom si bottom line c'est que siit dañuy wax ni li ngay bay dundee loolu mooy doxal dëkk parce que mooy tax nga am valeur ajoutée moo tax nga am productivité moo tax nga am croissance boo xam ne mën nga ko lekk croissance dañ koy lekk taux de ko lekk si dañ koy lekk boo ko ko produire hmm. mën nga ko lekk mais soo ko produire mënoo si jot li olof di wax balaa nga am naam nga defa hmm. loolu rek lañ soxla dans le même sillage élevage moom élevage hmm. mën nañ dem si mil si riz Euh, maïs ak blé. yooyu yëpp boo xoolee seen taux de rentabilité c'est à cinq tonnes à l'hectare. Mm-hmm. on consomme au total blé. Euh, blé euh, huit cent mille tonnes. Mm-hmm. riz un million deux cent tonnes. Mm-hmm. le maïs quatre cent mille tonnes boo ko boolee muy deux millions quatre cent deux millions cent deux millions six cent tonnes par an. te je que est-ce xam ne ñaata hectares nga soxla pour loolu. tu as juste besoin de trois cent cinquante mille hectares maximum quatre cent mille hectares. au Sénégal on a plus de 3 millions 800 hectares de terres arables on a plus de 8 millions 800 de forêts. au Sénégal. au sol looy soxla léegi am nga terre arable looy soxla ndox ngay soxla. ndox la ñuy soxla. on a des on peut faire des forages non seulement des mais loo du fleuve. du fleuve Sénégal du fleuve Sénégal. Mhm. qui se dans la mer xam ñaata la ñuy perdre par an. 24 milliards de mètres cubes. do la ñuy perdre chaque année si ndox. mais mais président ça demande aussi des moyens colossaux. c'est pas des moyens c'est pas des moyens colossaux boo bëggee irriguer un peu. c'est pas des li ngay li ngay dépenser moo ëpp on a un déficit budgétaire de plus de trois mille neuf milliards par an. déficit budgétaire mm. trois mille neuf cent milliards par an en deux mille vingt trois. en deux mille vingt deux on était deux mille sept cent milliards. Mm. yokk na mille quatre cent milliards par année loolu. amul économie bu ko mën a soutenir c' est pas possible il faut nga dem vers des investissements état bi levé na bu yàggul deux cent cinquante milliards. mais loolu boo ko levé da ngay financé yi ma lay wax nii yëpp am da nga am souveraineté alimentaire en viande. Mhm. souveraineté alimentaire en blé en may da koy am. si enn enn loo xam ne dette boo xam ne mën nga ko fay dans dix ans. avec deux cent cinquante milliards on peut faire ça. non je veux dire que au moins la grande partie tu peux tous les aménagements par exemple peuvent être réalisés par l'armée le génie militaire mhm. armée nation c'est que foofu la ñu gën a soxla la sécurité peut être gérée par l'armée encore une fois mhm. et là tu vas créer des milliers d'emplois ndox du fleuve loo du fleuve bi la noonu mhm. boo ko dévier bëgg arroser terres parce que des programmes euh, triennal kii quinquennal wala un programme quinquennal par exemple mais tu as tu as minimum euh, quarante mille à cinquante bu nekk bu amee dix personnes tu as combien tu as quatre cent mille emplois directs générés. Mm-hmm. quatre cent emplois directs boobu mais année année laa loolu ñaari at laa trois ans nga récupère nga dem retour sur investissement mm-hmm. en trois ans. tu as un retour sur investissement. kon boog le développement du Sénégal qu'on parle depuis ou bien l'émergence du Sénégal on parle depuis ça peut passer par l'industrie on n'a pas le choix non seulement politique agricole mais encore une fois depuis damay continuer process bi. Mhm. da ngay teg ay incubateurs industriels. que la toute la après. toute la production tu vas le transformer au Sénégal. Mm-hmm. on va plus jamais. Mhm. exporter des matières premières arachides dootu fi génnati demul Inde demul Chine. demul fenn loolu on va développer de l' intelligence de de l' intelligence économique ñu dem Inde xool xool arachide lan lañ si mën def arachide lu mën def tous les produits dérivés le noix d'acajou tu as mal quand Ziguinchor y' a 400 ah, conteneurs qui attendent exporter y' a les Indiens qui viennent racheter ici dem yóbbuwaat ko mm-hmm. tu as mal les fruits secs les fruits les fruits et légumes yi yàqu Ziguinchor au niveau du sud même en en Tamba y' la banane et tout ça tu mets des incubateurs poulains pour la transformation et ça c'est possible c'est à notre portée on a juste besoin d'une volonté politique ak bëgg Sénégal yéene Sénégalais yi alal yéene leen ay milliards yéene leen ay millions loolu bu ñu ko amee ñu boole on peut faire créer beaucoup d'emplois en un temps record et c'est à notre portée et c'est à notre portée